bokk ci ñi ñi yàqulee fii man nga ñu wax sa tur ak sa sant ak li nga yàqulee fii. Euh, man ma Mamadou Bari laa tudd ñu may wax Maadou quoi euh, waaw boo lii li ma fi yàqule euh, ñetti nag la quoi mooy nagi laq yi ngeen di gis nii quoi benn bi nag gisuma ko quoi donc xaw ma dafa réer xaw ma nu mu demee daal samedi passé lañ demoon jënd ci ko Touba ma ak sama gars yi quoi parce que dañu am benn GIE bu ndaw bu ne fii benn tali dañuy def élevage ak lépp et tout. xam nga loolu kessé la ko wax bon ñew na fi tay sax ba man ma leen may ñu lek euh tok na ni di seetaan match Europa League bi ni jégg jégg ñu woo téléphone ma paak baangi tax tàq quoi gars yi génnee xar dama nga dem xol ba xam mais man automatiquement mo mu accès ci bundu bi rek bi accès ci bundu bi gis tax tax fi mi taxé quoi ci la xadu ne place nagé nag la quoi ci la né ah amatuma ci woon yaakaar quoi franchement jottuma sax aga foofu mané légui na jëma xol fi xari yi nekk rek mu mu rawalé xari ma rawalé leen quoi mais nag mom moom ba ma ci bundu bi rek la né góobari dina fa fekk nak buy dund quoi non la démé dal voilà mais nag non nag yi iya di di la demee ay nag instant amuñ doole ay nag samedi lañ fi ñëw amuñ une semaine la samedi lañ Touba oh. sama gars quoi jënd ji ko ah, ñett nag ñett la quoi mais ñaar yi moom ngeen gis mu laq nii benn bi moom gisuñu ko waaw yi njëg bi daal ah. Apa peu près hol? xool benn bi ñu ko jende booy bi tëdd nii ñu ko jende sang soixante dix mil beneen bi ñu ko jende sang cinquante bi ñu ko jende sang quatre bi rëcc gisul quoi transport beeg yooyu mom génnewu ma ko ci quoi parce que ñu ngi fay oto presque. Oh. non non franchement man mënu ma wax ne la lakk bi nii la demee parce que nee naa la ma toog kër gi di seetaan télé sax machine jéeg-jéeg téléphone paaka ba dafa am lu fa lakk gars yi génnee xar yi su dem xool ndax seen xar yi bokku ci ma ne la man bi ma egg see bi xool fi fi muy laqee man xam naa fa la samay nag nekk man aw ma ci ma ne kon jéem ma jéem a ba ma ñëwee tamit bon fekk naa ay nit ñu ma ñu génnee xar yi quoi xar yi moom allah benn demu ci quoi mais nag yi moom ñu jënd samedi bii passé tuubaadul nag yëpp benn bi moom dafa rëcc ci dara ko seen noonu la demee quoi. mais amna ñi wax ni aussi que xar yeeg nag yi am na ñu ci ño xam bokku ñu ci mais dañ doon jël xaru jambour yi. non ay sacc ak yoy est-ce que yow mën nga deugal lool non man mënu ma dëggal loolu. waaw franchement mënu ma dëggal loolu parce que gisuma ko du ma wax luma ma man bima ma di génnee sama xar bu doon man kessel la du ma leen génnee amna na ñu ma dimbali sax jappalé ma ci té biñu leen génnee tamit ñi ko doon xol man xawma leen té biñu démé ba affaire dal di ñëw na fekk fa xar yépp kon man mënu ma dëggal loolu franchement voilà non la dabe non man Mamadou Bari laa tudd ñu may wax Maadou. ok noonu la demee. yow ñaata at nga bi bon à ay trois ans affaire yi demee noonu waaw.